dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéen a kaay ñu xëyandoo yéen a kaay gii di réew mi ko dëjee ci mu njëkk mu xëy ci kër gii di Senelec yor lépp lu jëm ci wàllum courant bi ak directeur général bu Senelec di Pape bi Bitèye ak jéego yi nga xam ne jamono ji Senelec ma ngi koy def journal bi nee lu toll ci 129 milliards dollars la Senelec jël def ko ci lu jëm ci wàllum courant boo xam ne dina jëm ci lu toll ci junni ci gox journal bi nee na lekk ak koppar yooyee dina daal di yóbbul courant lu toll ci 97 000 ci ay kër danañu leen dugalal courant Senelec xaalis bu baree bari milliards yi la jël ngir nag dugal ko ci lu jëm ci wàllum courant bi ngir gox yu baree bari mën a am courant qualité boo xam ne qualité service bu baax lay doon yéen kaay gi nee na tamit Pape bi tey mi nga xam ne moom la ñu dénk Senelec def na ay jéego yoo xam ne jamono ji kenn du ko werante bëri nay gox yoo xam ne amuñu woon courant jamono ji courant ba nee boy lu jëm ci wàllum fidélité ak lu mën di am loolee tamit xamee nañ ko ko yéen gi de la témoin xëy jigéen ñi yéenekaay gi di Sud Quotidien nee na Macky Sall démb dafa rendre hommage jigéen ñi ba xorom sedd maanaam jaajëfal na leen bu baax a baax waaye tamit rendre na kii nga xam ne mooy waajuram wu jigéen ak soxnaam di Marième Faye Sall yéenekaay gi di L'As xëy di ñu xibaar naa ñu Macky Sall démb opération de charme la doon def si jigéen ñi maanaam da doon njaay ceeke di leen di neexal di leen di bàppa di leen di xalamal moom Macky Sall ngir am leen journal bi di L'As moo ci xëya yéenekaay gi moom li mu gis ci bëccëgub démb nga xam ne Macky Sall dajale jigéen ñi maanaam folklore boo xam ne xumbaay mbumbaay rumbaay la at mu jot scénario bu mel noonu rek mooy am waaye ba léegi jigéen ñi ci réew mi ñoo ngi wéy di ami jafe-jafe yéen kay gi de la regard ñu xëy fekk fa am sa dosaw si di nee na ñi nga xam ne ñoo amee ay entreprise war na ñoo gën a dooleel ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi jox leen ay poste de responsabilité yéen kay gi du l'observateur nee na ba léegi am na jigéen ñoo xam ne ñoo ngi dund ay jafe-jafe ndax am na si ñoo xam ne ca gox ya ñu nekk amuñu ndox amuñu électricité maanaam courant lu jëm ci wàllu wér yaram amuñu ko di dund ay jafe yoo xam ne maara am na benn soxna boo xam ne ma ngi nettali ci biir journal bi neen lu toll ci téeméer ak ñaar fukk ci ay bidon ndox yoo xam ne vingt litres la la doon roñ bi mu ko roñee ba pare gis na ne ëmb bi mu ëmboon dafa daal di yàqu ba léegi ci ndakaaru am na si ay jigéen ñoo xam ne ci mbedd mi la ñuy fanaan yéen kaay gi de Les Échos ñu xëy fekk fa Koura Ndiaye nee na jigéen ñi mérito wuñu maanaam ñu leen di jàppee ay jaama jàppee leen ay nit ñoo xam ne ay nit ñu jëmul fenn la ñu ndax bëri na ci ay jigéen ñoo xam ne dañu leen abandonné wan leen ginnaaw daan nay wax tamit ne bëri na góor ñoo xam ne dañuy am doom ak jigéen daal di koy lànk yéen kaay gi de Le Soleil nee na njiitu réew mi di niki démb daan nay ay mesures yu am solo jëmale ko ci jigéen ñi ci lu jëm ci wàllum code de la femme wàllum entrepreneuriat féminin Macky Sall wax na ci niki démb ak nan lay def ba jigéen ñi moom seen bopp mën a mënal seen bopp yéen a kaay gi di ñu xëy fekk fan Ndella Amar daat nay wax ne moom ab bon la maanaam mbindaan la quarante mille lañ koy fay juróom-ñetti junni lañ koy fay maanaam ci gàttal daat nay wax ne ci lay dund ci fay location modèle la maam Astou Dianka modèle la Fawade Wele modèle la Sénégal yàgg naa bëri ay jigéen ñoo xam ne ay modèle la ñuy doon yéen kaay gi di Rewmi Quotidien wax na ci njàng meeg njàngale mi nga xam ne nar na yëngu lu toll si ñaari fan yoo xam ne jàngalekat yi dañu koy gerew yéen kaay gi di alerte nee tey ji la màggalug borom daaro maanaam màggalu daaru musi gi tey ji la daaru musi nekk célèbre bu yoonu murid yi yéen kaay gi di enquête nee na Guy Marius Sagna daan nay porte plainte commissaire bu Dakar Plateau yi nga xam ne moom la àndaloon demoon ca buntu ambassade bu Tunisie ñu ko tegoon loxo ñu sànni leen ay grenade lacrymogène journal bi nee na loolee moo tax Guy Marius Sagna ba léegi mënu koo wanaasoo yéen kaay gi di Vox Populi ñu xëy fekk fa Seydi Gassama daat nay wax ne gouvernement bu Sénégal dañuy jaawale ku leen tuumaal ak ku leen laaj Hadjibou Soumaré tuumaalul kenn waaye da leen a laaj te loole nag sénégalais bu nekk am na si sañ-sañ yéen kaay gi de Le Quotidien yor yora ak réew mi Quotidien nee na Pam Ndiaye journaliste Walf Fadjri bi mandat nañ ko dépôt niki démb laas yéen kaay ak Libération nee na lu toll ci juróom benn ci tuuma la ñu gàdd ci ndoddam yéen kaay gi di daat nay xëy wax ci politiciens yi nga xam ne ñooy def ay révélation ci ay scandale loole nag mën na leen a jural jàmm waaye tamit mën na leen a jural safaan waa Bougane Gueye Dany yàgg nañu koo dégg muy révélé scandale Ousmane Sonko ci la dëkk Hadjibou Soumaré bërki Démo Ndiaye journal bi nag nee na ñi nga xam ne seen xel màcc na jëm ci wàllum càmbar politique nee nañu loolee politicien bi mën na koo def maanaam mu jural ko njariñ waaye tamit mën na koo def mu daal di jural ay loraange yéen kaay gi di Les Échos nee na rëg ak Sa Thiès teg nañu leen ay daan yéen gi di sunu làmb nee na Sa Thiès dagg nañu ko lu toll ci un million cent vingt mille rëg-rëg ñu dagg ko lu toll ci sept cent quatre vingt mille francs bi nee na CNG tey jii ci suba convoqué na rëg-rëg ak Sa Thiès ngir déglu leen